tontu ñi nga sénégalais yi nga xam ne ñu ngi xeltu ñu ngi suivre actualité bi président Macky Sall le 3 juillet il a dit qu'il ne fera pas un troisième mandat même dans ses voyage le protocole républicain a été allégé mm-hmm. on sentait que c'était un homme qui se préparait à partir mm-hmm. ñu dugg ci processus électoral bi ñu wax waxu report de nombreuses voix dans la majorité yëkkati ne en fait c'est l'opposition qui n'est pas prête c'est l'opposition qui veut le report et effectivement il y a des opposants la moitié ñii di yuuxu tey dama la koy dëggal ah. ils voulaient le report ils l'ont dox nañ ci yónnee nañu ci ñoom ñi di sànni xale yi ci àll bi tey muy benn ngeen nekk ci seen biir camp mu am une minorité basée quelque part ici bu nekk di def ay manœuvres pour a changé le candidat Amadou Ba. ah waaw déglu ma rek seeni man ñuy manœuvrer. Eh. opposition bi di manœuvrer les recalés manœuvrer teg seen collectif ñu bari ci ñoom taxaw ne dañoo war a arrêter processus bi tey ñu ngiy daw ñu ngi koy weddi. Ah. conjonction yi yëpp ak affaire Rose Wardini yeeg la validation euh, de la candidature de Karim Wade le rejet de la candidature de Karim le rejet de la candidature de Bassirou Diomaye xëy na dañuy accorder Macky Sall le bénéfice du doute Macky la jàpp ne xëy na la meilleure décision c'est de reporter les élections sauf que kenn du dédouaner Macky Sall. man opposants yi yoruñu réew mi Macky Sall dañ ko fal pour que muy jël décision yi baax ci ñun. Macky dañ ko fal pour que muy protéger les emblèmes de notre pays. Macky dañ ko fal pour que mu préserver suñu dignité en tant que citoyen en tant que nation. Macky dañ ko fal moomul boppam ñun dañoo bëgg Macky Sall génn réew mi avec tous les honneurs. ndax liggéey na ko fi jëf na ko fi. Ah. c'était à Macky Sall de prendre la bonne décision pour le pays. et est-ce que Macky Sall a pris la bonne décision pour le pays en reportant ces élections là moo tax c'est la que je te moo tax kenn waru koo xalaat est-ce qu'il a pris la bonne Maïmouna, décision. Maïmouna dafa am à dafa am philosophe boo xam ne ku jàng science politique rek di nga ko jàng ñu ngi koy woowee Jean-Jacques Rousseau mu bind livre politique lu sax livre am bu njëkk parce que livre am bu njëkk mu ngi tudd discours sur les sciences et les arts nga xam ne concours bu académie de Dijon organisé woon mu am lu mu wax lu am solo. loo xam ne dama ko jàpp ba léegi nee na un peuple veut toujours son bien dégg de nee na réew askan lu baax ci moom rekk la bëgg toujours saa su ne mu teg ci mais il ne le connaît pas toujours mooy du saa su ne la koy xam lu baax ci moom lu baax ci ñun yàlla ko xam xam nga lu ma gëm ëllëg fileeki at xëy na ñu bëri ŋaññoon lii dinañu sukk ne ah su ma yëgoon xaw moon ne lii la naroon a jur moo tax ma ne la on n'a pas l'expérience du possible li naroon a am lim naroon a jur yàlla rek a ko xam man sama liggéey enfin sama sama souci boobu pardon parce que tuuti naa ci lool may mun a dama cee tuuti man dama cee tuuti yàllaa ma ci boole rek waaye dama cee tuuti ndax amuma ci dogal dama yaakaar ne dañoo war a góor góorlu xam ne sunu Sénégal gii bu ko nit yàqee ci biti ŋaññu ko ŋaññul rekk a Macky Sall sunu image lañu ñun ñu góorgóorlu fii ak juróom-ñetti weer yi ñu xam ne kuy dem yomb naa muñal ñu seet nu ñuy def ba taxawal sunu réew ñi nga xam ne ñoo am seen candidat ba noppi doon lii ni nga ko waxee di laam-laamee moom laam du moom man naam mënul jëkkanaam jëkkut ñu seet nuy tege loolu yëpp ku mën a bokk nga bokk ku war a bokk may mun a nga bokk loolu la ku sénégalais yi jàpp ne moom mu gën ci ñoom amaana sax mën nañoo xalaat loolu te du loolu ku jàpp ne mu gën ci ñoom ñu fal ko mais comment ôter dans la tête des sénégalais que ce sont des manœuvres politiciennes qui ont conduit le pays dans cette situation. Ouais, mais, des manœuvres mais, au sein mais, de l'Alliance pour la République, de manœuvres au sein de l'opposition, de manœuvres au sein de recalés, des manœuvres au sein du Parti socialiste. Est-ce que du loolu moo metti Sénégalais yi parce que ni situation bi demee. dafay wane ne Sénégalais yi ñu bari d'accord ñu ci report bi. est-ce que du loolu moo metti Sénégalais yi. nan ngeen di raxasee loolu. ci boppu Sénégalais yi. peuple ci démocratie benn façon rek la am bu muy nattee mbooloo ndax mbooloo walla du mbooloo mooy mu tànn ña nga xam ne ñooy ses représentants lu ñoo woowee la fiction représentative c'est-à-dire ngeen fal ay nit ba noppi ngeen ne boo waxee man maa wax bu ngeen waxee ñun ñoo wax et ñooñu ñan la. mooy le pouvoir constituant. mooy le pouvoir. mooy ña ne fële di représenter. conseil constitutionnel réew déedéet. ñan assemblée conseil constitutionnel dañ leen nommé ah. assemblée ngay wax. oui les députés là. assemblée là les députés là ils parlent pour bah. le peuple. oui les députés sénégalais là. oui pour leur majorité. ah yow kan ngay wax ils les députés de la majorité. yow léegi yow li nga wax ni kañ kan ngay waxal. yow man yow yaay wax le peuple. les députés de la majorité. waxaluñu peuple bi. mais Maïmouna c'est-à-dire que man dama la wax ne. il faut qu'on s'entende dama wax ne démocratie inventé wuñu beneen façon bu ñu représenter nit ñi askan peuple bu dut représentation à l'assemblée léegi bu ma dee wax ne ñooñu lu ñu def représenté wul peuple bi dama ciy boole tuuti nuance ak modestie parce que ñoom dañoo dem sàkku ci nit ñooñu ñu fal leen man demuma sàkku ci nit ñooñu ñu fal ma donc légitimité bi ñu am pour wax man amuma ko et mais ils ont trahi leur mandant. waa déet wax jooju ëpp na. ah si. wax jooju ëpp na. yow defoo sondage. ils ont trahi leur mandant yow defoo sondage Maïmouna yow defoo référendum. bu ñu taxawee assemblée dañ naan man député Macky Sall laa. bu ñu taxawee assemblée dañuy voter selon les injonctions de la majorité. et de ses intérêts. yow ban dëkk nga gis bu fu ñuy bu ñuy voté. du ah. ñu voté seen injonction. Ah. majorité ban ban dëkk nga ko xam. y a des assemblées nga yaakaar ne nga yaakaar ne républicain yi nekk fële. du nu voté du nu xool li doon li seen président Donald Trump bëgg bëgg wala li seen candidat Donald Trump ban dëkk nga gis loolu loolu amul gis nga gis nga may mun a bu nu nax suñu bopp gis nga démocratie Sénégal euh, xam nga man dama am lu ma naqari ci lenn rek mooy ma gis français yi di ne dañuy jox ay leçons. ah ça fait mal man daf ma metti ah. Euh, gis nga gis nga ñun fa ma ne di UNESCO ak léegi Nations Unies dañ ko imiter dañu fa développer lu noo woowee la culture du consensus. xam nga ku ko fa yóbbu benn doomi Sénégal nee na Sénégal la ko gisee yóbbu ko foofu mooy Amadou Mahtar Mbow ma wax la ko gis nga xam nga lépp fu mu fu mu jóge ci lenn lu nga xam ne dañu koy wax ba noppi di ko fowee walla euh, wala xeeb ko wala léeg-léeg sax du ñu xam doole jim mu am mooy nit nitay garabam nit nit ay garabam gis nga euh, sunu démocratie bari nay problème bari nay jafe-jafe mais fexe nañ ba bu nu defee élection balay guddi jot vingt heures au plus tard ñu ne diw nga ñë diw félicité diw am na dëkk yu ñuy woowee démocratie yuy woowee seen bopp démocratie amu fa amu fa amu fa léegi nag ah xanaa lenn rek la ñu lañ ñu rawee ñun ñoom ñu ngi fal ay góor jigéen ñun falaguñu góor jigéen de dëgg la ñoom loolu raw nañu jeexal te ñun dañu ne duñ ko def mais leneen lu ñu am rek ñun am nañu ko may mun a leneen lu ñu am ñoom ñun am ñun am nañu ko ci jiitu leen ci lu yàgg a yàgg ñoom ñu di ko doog a def parce que démocratie ci sunu tradition politique la bokk monarchie wolof boo ko seetee toutes les monarchies les modèles de décision étaient consensuels bu majorité dégagée ñu respecté. justement buur bi sax da ci doon plié justement Souleymane est-ce que li ñu metti c'est pas cette offense faite à la démocratie sénégalaise. qui nous vaut aujourd'hui déedéet d'être d'être campagne médiatique non non campagne est-ce qu'on n'a pas prêté le flanc France temps yële benn député moo ñëw. ne dañuy arrêter limitation deux mandats ca France ñu ne ñoom dañuy arrêter limitation deux mandats mu ne dafa bugg Emmanuel Macron def trois mandats est-ce que dégg nga ci coow. est est-ce que dégg nga ci coow. député laa wax bu doon fii mu doon scandale bu rëy ñu ne dañuy arrêter deux mandats ndax dafa am député boo xam ne nee na dafa buggu Macky Sall continuer di dem rek. bu doon fii. mais des gens l'ont dit may mandat mais Maïmouna Maïmouna des gens Maïmouna. ont défendu le principe du mandat illimité. Ma... et ça n'a pas choqué ça a fait l'objet d'un débat normal. bu doon bu doon ñun bu ñu ko waxoon ñoom ñu xas ñu ci ak yeneen ak yeneen français yi mille dañuy wax ñoom dañuy wax rek 1958 nu dogal nga jëlee nguur gi dañ ko fal laaj leen. dañ ko woo mu ñëw. ndax dëggool woo mu ñëw mooy lan kon man naa la woo nga ñëw. non dama lay conforter ci li ngay wax. nan nan la woo nga ñëw. waaw dama lay conforter nga waaye Souleymane. xëy na xëy na 58 ba 62. laata ñuy modifier constitution 1958 bi xam nga ñaata nit a doon fal buuri euh, président France 86 mille personnes c' était un collège d' électeurs ñuy nax dañ ñuy nax dañ ñuy nax man man awma attention li ma metti mooy lu ñu ñuy yedd ñoom ñu yaakaar ne mën nañoo yedd mais aw ma benn complexe ci sama de démocratie réew aw ma benn complexe et loolu xam nga ko ma ci dindi Abdoulaye Wade laa gis muy jëflanteeg ñoom di wax ak ñoom alors